Macky Sall mënul jàkkaarloo ak dëgg il faut ngeen comprendre ne même français yi ngeen di jooy tey ngeen ne dañoo coloniser ñu ngi ñuy noot si les gilets jaunes demandent de sortir tous les français sortent de tous les côtés président Macron day génn gaaw wax ci li nga xam ne moom la wax bu ci waxul ñu lakk gatam donc c'est la même chose avec Macky Sall si tous les sénégalais sortaient on fait face à Macky Sall duñ fi nekk di waxantu diw saaga na sonk diw xas na ma Marème fay Sall diw xas na kii diw xas na kële amuñu jot boobu on n'a pas le temps damay toog yenn saay sama ay xarit yu baax di ma woo ñu ne ñun ñëpp dañoo bëgg nga wax ci lii ndax ñëpp defe nañu ne dangaa ragalal lii dangaa ragalal lële moo tax doo wax ci lii doo wax ci lale ma ne leen man dama am montre te sama montre dafa am heure te sama bopp bi day dox donc si ma tête marche du ma nit du ma gasal piège gas pax man ci sama bopp ma ma dox ma dem daanu ci biir pax bi je ne vais pas faire cela les pièges sont faits pour les cons piège dof rek lay jàpp piège du jàpp nit ku normal les personnes normales na tombent pas dans les pièges moi jeune ne pas dans les pièges il faut ngeen comprendre loolu ñun li ñu gëm Sénégal ñun Sénégal lañu gëm Macky Sall boo leen ko xoolee ci république bi ñu nekk la nom est bien précisé Binta Gueye Macky Sall is a bully mooy maanaam tey tàppet yooyu nga xam ne dañuy dem di menacer doomu aadama yi di leen xëbal ci école yi di leen wax ay wax yu ñaaw ba xale yi bu ñu wàccee am ci ñoo xam ne dañuy ragal a dem ñibbi yaakaar ne bu ñu wàccee kii daf leen di dóor wala daf leen di def dale te fekk mënul def kenn saram de Macky Sall mësul dóor kenn Macky Sall il n'a jamais bastonné quelqu'un dem leen ngeen xool histoire am il n'a jamais masul dóor kenn masul gagné benn combat ci àdduna il n'a jamais gagné un seul combat dans sa vie lépp lu mu man mooy yëfu doomeeraam yi nga xam ne moom lay def ci palais bi sàcc ay élection toog puukare sol ay grand boubou yu mag di fen di dajale di kàcc sénégalais yi respecté wul sénégalais yi maanaam il ne respecte même pas la souveraineté de notre pays maanaam xam nga ñaari façon nit ñoo am ci àdduna bi mooy nit ki am classe ak nit ku amul classe la personne nit ki am classe góor bi am classe gis nga bu dëkkee ak jabaram ci biir kër jabar ji ne ko bëggatuma sëy day moom mooy jël déglu leen moom day jël saagam moom góor bi il prend son sac def ci ñaari chemise ñaari pantalon bu ko jabar ji ne du dem sax ak saag bi mu bàyyil ko saag bi mu jël ay bagage mu jël euh, ay tànkam génn kër gi ndànk dem kooku mooy góor bu am classe góor bi amul classe bu ko jigéen bi ne mënatuñoo nekk da koy ne nangamtaanal sa ndey abal ma kër gi yàgg sa ay doom kooku mooy góor bi amul classe parce que góor bi am classe xam na ne jigéen kenn du ko toroxal jigéen yàlla ko doole te mu jóge ci nga xam ne ci ci ci ci côtelette bi gën a dëng ci suñu côtelette yi ñu ne ñu yërëm leen ko yërëm leen ko ngeen tegte ko neexal ko kooku booy génn yow yaay génn kër gi ndànk nga bàyyee ko kër gi bàyyee ko xale yi ba pare di ko jox dépense di ko toppatoo man mii di wax ak yéen man bis bu ma daloon moom premier enfant que j'ai moom premier enfant xam nga yenn saa di nga ñëw ba dugg ci ay ay ay ay cas yu technique moom premier enfant que j'ai nekkuma ak yaay ji lan la def yóbbu na ma justice lan la def ma koy fay child support chaque mois merewuma ko sonalu ma ça m'emmerde pas ça me prend pas la tête parce que lépp loo gis ci àdduna rek am na loo xam ne euh, moo koy faj mooy lan mooy fulla ak fayda loolu du ñàkk ngóora gis nga patience ci ngóora la bokk patience ci ngóora la gis nga kooku nekkuma ak moom mu suñu euh, euh, suñu suñu ànd ëppul ñaari semaine pour te dire ce qui est bizarre. Nous marché, et on s'est compris. Qui m'a nekkal tey on est en 19e année. te ñu ngi ci jàmm ñu ngi ci salaam amul dara lu fi naqari c'est ainsi la vie ainsi va la vie toujours you can leave the bad for better lu ko gën wala bu bonul sax tamit mën nga ko bàyyi pour lu ko gën pour lu meilleur mais daggasante bi Macky Sall mi ngi daggasanteeg sénégalais yi mi ngi xastanteeg sénégalais yi mi ngi ñuy saaga mi ngi mi ngi ñuy kokkoli sénégalais bu ko wax dara mu wax la lu bon mu jaar la fu bon te ñemewul jàkkaarloo ak yow day toog ci ginnaaw garde corps yooyu ay journalistes mu fay ay journalistes culottés vous savez que tous les journalistes qui ont entouré Macky Sall ce jour-là étaient payés par xam ngeen ne télé yi journalistes yi waroon Macky Sall keroog yàpp dafa leen fay. daf leen fay mu taaj leen ne leen kaay leen laaj ma ay question léegi gars yi di ko laaj question yi mu bëgg muy tontu yi mu bëgg te kenn du ko ci teg pression théâtre boobu la Pape Alé Niang bañoon bokk Pape Alé Niang théâtre boobu la bañoon bokk Pape Alé Niang bañul daje ak Macky Sall déedéet dafa xam ne daje ak Macky Sall c'est un théâtre da koy yàqal crédibilité bu ndaw bi nga xam ne am na ko crédibilité bi mu am Pape Alé bëggu ko woon yàq dem toog ak Macky Sall parce que ça allait le gaspiller la ça allait dafa doon massacrer massacrer crédibilité am et il il a refusé de massacrer sa crédibilité Pape dafa bañ a massacrer crédibilité am gars yi bëgg nañ koo jël def ko affaire Ousmane Sonko déedéet. Pape Alé a bien appelé Ousmane Sonko pour le recevoir. Ousmane Sonko lui a bien précis que, comme tu m'avais reçu, cette fois-ci je vais passer Ngedjel Kenen. C'est là Pape Alé l'a informé que il a essayé de prendre les autres et ils ont fui leurs responsabilités. Je ne dis pas que c'est des mauvaises personnes. Peut-être ils ne sont pas prêts à répondre aux questions que Pape allait demander. Donc ils n'ont pas accepté. Donc, ce qui a poussé Ousmane Sonko à accepter cette invitation. ay doomu aadama bëgg a génn ŋàññi doomu jàmbur mais nit bu la dàqee nit bu la ëppalee da ngay nangu nga gëm yàlla ne kii moo la dàq moo la ëppale moo la gën ndey moo la gën juddu moo la gën alal nga bàyyi ko te yàlla tax manoo ci moom dara tous naada loolu comprendre leen ko mais man Ousmane venu d'une famille extraordinaire, venu d'un papa milliardaire, venu d'une belle maman qui euh, Mais man dama naw Sonko, man Sonko dama ko bëgg ci sama biir xol. Ci sama biir xol bi. Ça ne veut pas dire que comme li ma leen wax, je n'ai toujours pas milité sur le Pastef. Mais dama naw Sonko, il est mort dans mon cœur. Man dama ko bëgg. Sonko bu doon jigéen damay fetalante ak àdduna bi yëpp ndax mu nekk sama jabar. s'il était une femme, tellement que son caractère est magnifique. Son caractère est magnifique, extraordinaire. nit kooku man dama ko naw man man dama naw Sonko Sonko dama ko naw ngeen bëgg a toog ne voilà du fi dalee ñi duñu bëgg Sonko mais pourquoi vous êtes qui mais dinañ ko bëgg moo ko moom kan moom moom mbëggeel Sonko doomu aadama yi ñoo ko bëggal seen xol moo dee ci xolu doomu aadama yi kenn mënu ci dara il n'a pas demandé Sonko dem leen ngeen toog fan ngeen mës a déggee Sonko mu def ojo yónnee ko Sénégalais yi ne venez mémé confidence am la ñu gëm xam nga nit li ngay gën a gëm ci moom mooy day confident moi je suis confident loolu moo neex ci affaire Tunkara je suis très confident amul dara loo xam ne mi ngi ci àdduna bi loo xam ne yaakaar naa ne mënuma cee jot amul confidence boobu moo nekk ci man moo tax doo dégg yu ñàkk fayda tunkara moo nekk ci facebook bi di doxaan xale bu jigéen bi wala dina kële nob naa la wala dina kële kaa ñu ànd tunkara du def loolu parce que j'ai de la classe j'ai de la grandeur I have something called hauteur euh, euh, euh, laa am grandeur dama gëm sama bopp man gëm naa sama bopp gëmee sama bopp noonu laa gëmee Sénégal moo tax xeex ak man jafe xeex ak man dafa jafe parce que man dama gëm sama bopp man dama gëm sama bopp moi je connais qui est Tunkara te xam naa ne je suis capable de tout ah il faut ngeen comprendre ne y a de ces yàlla taal bu mu taal jéem leen koo bàyyi fay yàlla lu mu taal kenn mënu koo fay noo can turn it off yàlla taal bu mu taal kenn mënu koo fay loo ci man mooy boo rombee nga sànni ci sa ay matt boo mënul nga gàddu sa ay matt continuer dem sa yoon taal bi dina continuer tàkk c'est ce que j'ai à vous dire avec des amis man damay waxtaan ak ay xarit toujours je ne suis pas seulement un individu mais je suis un individu et je parle avec des personnes te bu ma waxee ak ñoom je je mets sur la table gis nga ma wax leen dara déglu leen ma de lii Tunkara leen koy wax gis nga Sonko ak Macky Sall déglu ma muy jigéen di góor dafa mel ni nga am jëkkër walla jabaru njaaloo kat walla nga am jëkkër walla jabar bu gëm yàlla boo xam ne du njaaloo du tooñ du fen du sàcc ñaar yooyu mooy seen différence jabar walla jëkkëru njaalookat boo xam ne du ragal yàlla mi ngi sa kër du julli du woor kooku boo ko yoree sa kër ci naqar ngay dëkk ci naqar ngay dee jabar ju gëm yàlla boo ko yoree sa kër muy chrétien di juif ak lu mu mën doon bu gëmee yàlla te du tooñ sama diggante ak yàlla saa boo yeewoo sa xol day sedd parce que même sa xol bu tàngee dina fexe sa xol sedd parce que dafa ragal digganteem ak boroomam Macky Sall jigéenu njaalookat la day duul day fen day sàcc day tooñ du wax dëgg caaxaan boo xam ci àdduna bi mu ngi ci doomaram jooju loo xam ci àdduna bi day sàcc xam ngeen ko yéen xam ngeen Macky Sall day sàcc àdduna bi yëpp xam nañ ko Macky Sall yéen a gën a xam ne day duul day kàcc day wax di wax loo xam ne du dëgg gëmul dara ci li nga xam ne moom lay wax gëmu ko loolu xam ngeen ko loolu on n'en disconvient pas Macky Sall xam ngeen ne day mooy yàlla ndax am na yaa awa yéen ñëpp xam ngeen day mooy yàlla am na yaa awa ak yeneen gel yu ma xam yu bari day mooy yàlla donc yooyu yëpp xam nañ ko sa mbéb Macky Sall la xamaluma ko nag xamaluma li ma loorul mësuma ko gis muy naan sàngara j'ai diine avec lui gisuma ko muy naan sàngara donc mënuma ko wax mënuma ko waxal lu ma wóorul gisuma ko muy naan sàngara yu Ndour day naan sàngara Youssou Ndour day naan sàngara di lok ay pion moom moom day naan sàngara di drogué wu moom il fait tout mais Macky Sall je ne l'ai jamais vu boire donc munuma seede loo xam ne bu ma dee tey man dongal ak sama bàmmeel waaye xam naa ne day sàcc c'est un voleur ça je le connais et je connais aussi que c'est un ndax dégg naa ko mu fen ba tey rusu ko amu ci gàcce dégg gi xam naa aussi ne que day njaaloo day mooy yàlla loolu xam naa ko ndax gis naa ko ak ay xale yu jigéen dégg naa te gis naa dugg be génn bi yëpp gis naa ko Abdoul Aziz Mbaye mi nga xam ne moom mooy conseiller spécialu Macky Sall day naan ba saw ci tubéyam moom moom day naan ba tubéy ji tooy day ñaan ba saw ci tubéy bi waxuma la xam nga naan dafa am ñaari façon ci mandikat yi am na mandikat yoo xam ne dañuy mandi mais dañuy contrôler seen bopp ils se contrôlent dañuy jël tuuti vin mais bu ñu commencé tipsy wala ñu commencé mandi ils arrêtent parce qu'ils savent que il doit conduire wala affaire yu mel noonu non mais Abdoul Aziz Mbaye il boit incontrôlablement loolu man maa ko wax sama diggante ak yàlla ak yonent bi man bu ma deyee man rek la ak sama bàmmeel day man di ba du man a taxaw temps yi passé boo leen ko dégloo Sénégal y a les nouvelles dafa mandi di war benn moto et allez voir sur son Instagram je vais vous dinaa leen jëlal capture d'écran j'ai capturé l'écran parce que dama ko mës a gis ak moto sur Instagram ma yónnee ko message ma ne ko mon ami sulaar du dawal moto. billaahi wallahi déglu leen ma de Tunkara mooy wax lii wallahi billahi bu fekkee damay fen yal naa toro yal na ma yàlla lakk yowmal qiyam wallahi billahi tallaay ma ne ko sëñ bi mu ne ma waaw ma ne ko sulaar du dawal moto wallahi ci Instagram am dinaa dem ma yónnee leen capture d'écran bi ma ko nee Soulard du dawal moto au nom du créateur deux semaines après le Soulard conduisait une moto il a tamponné un camion par derrière billahi wallahi tallahi lazim sama diggante ak yàlla ak yonente bi wallahi billahi tallahi ma ne ko sëñ bi mu ne ma waaw ne ko Soulard du dawal moto man damay dawal moto je conduis moto toujours mais je ne suis pas un Soulard donc moto yu mag boo ko yoree boo koy dawal c'est déjà difficile à contrôler soo bëggee naan mandi ci kaw loolu da ngay am ay complications donc monsieur a bu et il était sourd et a conduit sa moto et il est tombé il a cassé son jambe son son pied voilà donc loolu ñi xamul dem leen ngeen seetaanaat ko donc buñ leen di wax ne Macky Sall baaxul ak ñi ko wër baaxuñu il faut ngeen gëm ko te ngeen jàpp ko ngeen xam ne il est temps sénégalais yi ngeen jël seeni ay responsabilité ay mandikat ay njaalookat ay fenkat ak ay sàcc lañ ko seqal ñooñu xamuñu luy ngor xamuñu luy ngor parce que lu leen fi bàyyi tey mooy lan mooy na Macky salli ñëw jël nguur gi Macky Sall bu ñàkkee nguur gi ñoom ñëpp dañuy walaakaana donc dinañ ci teg seen bakkan dinañ ko wax troisième mandat baax na ah président troisième mandat baax na ci yow yow da ngaa baax yow troisième mandat rek nga mérité bu paree ñu ne ko quatrième mandat nga war a am bu paree ñu ne ko cinquième mandaa mais c'est la même piège c'est la même machine qui a fait tomber Ablaye Wade parce que Ablaye Wade démocrate bi mu doon xalaatoon na ci biir xelam ne du jàll troisième mandat il a voulu Mais non, non, non, non, non, non, non, non. Maintenant, il y a les soulards. Il y de 2STV. ngeen war a jóg dem xarit dem jongal ko cet imbécile bu jongul Mamadou Sy tu santul Tunkara Mamadou si ngeen war koo dem jongal ngeen bàyyi ko foofu mu toog ci 2STV bi di wax sénégalais yi yombe di leen wax lu leen neex doomaraam jooju demoon créé fi ay élection sàcc xaalisu jàmbur xaalisu partisan ñi ko financé woon mu dóor leen taab marto ci la Mamadou Sy Tounkara daanoo ba léegi mu continuer dem di ŋàññi Macky Sall ñu woo ko jox ko tuuti xaalis doomaraam jooju abandonné ngeen trouver quelques mécontents sur le Facebook ñuy toog diw moo dul avancé diw mooy dem ak kii dem yàlla moo ko xam man Ousmane Tounkara mi toog fii tey xam naa ne kaay leen ma wax leen dara lu ma xam te mu wóor ma xam naa ne sama oto bii ma dugg maa ko taal xam naa ne dinaa ci départ xaw ma nag ndax dinaa yegg fi ma jëm loolu yàlla moo ko xam mais dinaa ci départ moom incha allahu rabbi bu ma ko yàlla mayee maa ngi waaja a léegi loolu nag yàlla moo xam ndax dinaa yegg fi ma jëm loolu man xawma ko loolu man xaw ma ko de mais li leer ba leer ba leer mooy Sonko moom juutu rek dem puu bi moo la moo moo leen di sonal mais Sonko mënalu leen ko saram ndeyam Sonko kenn mënalu ko dara dara naada jël leen seeni euh, tàngal ngeen lokk ko jël seeni ay comprimé dof naan ci te dem tëddi nelaw Sonko kenn mënalu ko dara naada Sonko kenn mënalu ko tuus wax bàyyi xaalu tàmp tamp atampi wax nga pare nga dem nga ñun loolu moo ñu ci intéressé lii nag comme ni ma leen koy waxee euh, un opposant tey bu dee euh, benn opposant bu bees moo ñëw Sénégal vraiment convaincre ma mois je vais voter à propos de mes convictions sama ay conviction lay voté man maay xool ki nga xam ne moo ma neex ma jël sama carte ma xool ko étudier ko wax wax ak moom li nga xam ne yëpp mi ngi ci neex na ma ci moom bu ma neexee ci moom ma jël ko sànnil ko sama carte bu ma neexul ma jël sama carte lem dugal sama poche xool keneen ku ma doy ma sànnil ko kooku mën naa nekk Sonko ko mën naa doon keneen nekkuma fi di wax sénégalais yi koo leen di votel ak koo leen dul votel loolu du sama coobere mais dama leen bëgg a ne Sonko dama ko bëgg ci sama biir xol xam nga li gën a bizarre ci àddina lii dina leen reeloo tey bu ma ko waxee xam nga mon ami euh, ñu ngi doon seetaan élection Miss Monde ça fait quelques jours de cela euh, benn noir sud africaine moo ko nekk ah muy jigéen ju jongama lool nag neex a xool mais ça ne veut pas dire que je vais la marier ou je vais avoir cette opportunité peut-être je ne vais pas avoir l'opportunité peut-être du dëgg donc ma jàpp ci ki nga xam ne moom laa nopp muy sama awa ndaw mi nekk sama kër jox ma jàmm donc Sonko laa bëgg ci sama biir xool ne veut pas dire que je suis de pas je suis du Pastef mais j'admire j'admire cette personne Sonko daf ma neex je le regarde neex naa xool neex naa déglu billaay boo ko dégloo sa xol day sedd parce que li muy wax waxu ko pour doomu aadama yi bëgg koo dégg mais day doon dégg dégg dafa neex a déglu déglu leen rek benn exemple benn Sonko buy wax ak benn Mami Wata buy wax ak dof bu nekk fële di ngala ngala ngala ngala ngala ne des point par point par point par point di leen kaaseel di leen indil ay point di leen tegal ay point di leen tegal ay point ngeen di déglu parce que ko du waxee n'importe comment moom quand il parle he speaks sense maanaam dalay wax li nga xam ne moom la xam xam-xam la lay wax moom du la wax waxu dof il ne te parle pas ça xam nga mën ngaa jàpp Tunkara tey nga ne Tunkara jàngul la Tunkara la qui est à New York il n'a pas fait les études euh, donc euh, ok ñu ngi lay euh, Galsen euh, blog Galsen doomu xaraam ñu Galsen sa ñu ngi lay yow sa cottu ndey ñun Sonko kenn du ko saaga ñuy seetaan sa nangam sa dëfal ndey yow ñu Galsen bloqué nañ la génn nga parce que yow faux profil nga. voilà ñun duñu ñu nangu ku saaga sonk voilà Sonko du ñu nangu ku ko saaga duñu nangu ku ko xas ko nangu man de duma ko nangu man Ousmane Tounkara c'est une personne que je respecte et c'est une personne que j'aime beaucoup dans mon cœur man. loolu je vous le gis nga bëgg naa euh, ñëpp naa leen wax lii léegi bëgg naa j'aime tout le monde mais je ne love pas tout le dafa dee ci sama biir xol bi Sonko fii daf fi dee parce que ka nit boo koy déglu muy doo mu doon nit ku dëggu loolu nag sawaay mënuma ci dara comme les autres adversaires sama sama waa ji euh, Abraham bu may wax yi day bëgg a dee xam naa fi mu ne nii mi ngi supp jalañu di dóor bopp bi ci miir bi mu ne nañu moytu partisan je ne suis pas du Pastef na loolu leer xam nga leeralal naa leen ko je ne pas un un un un un nu mu tudd un membre du Pastef je ne suis pas mais j'admire Sonko Sonko dama ko bëgg sama biir xol bi loolu mënuma ci dara loolu yàlla moo koy def xam nga loolu mënuma koo tricher ay kenn kennaat mënuma tricher loolu Sonko moo nekk ci sama biir xol bi li tax parce que dama ko déglu man xel laay dégloo xam-xam bu ma toogee damay ubbi sama nopp di déglu doomu aadama muy wax ay wax yu am fulla di wax ay wax yu am fayda di wax ay wax yu mën a avancé loo sama dëkk di wax ay wax yoo xam ne futur bu baax la pour sama ay doom ak sama ay sët man mii ngeen di waxal j'ai quarante sept ans dans quelques jours dans trois jours j'aurai quarante sept ans J'ai 46 ans. Dans 3 jours, j'aurai 47 ans. I'm going to be 47. yaakaaru leen man bëgg naa euh, euh, retraité dem euh, yor sama benn tool bu mag Sénégal yor fa sama ay nag yor fa sama ay xar franku lay tegloo tegle sama ay tànk tux sama ay boyaar nekk ci jàmm yaakaaru leen bëgg naa loolu bëgg naa ko embaucher ay doomu sénégalais créer ay emploi créer ay société embaucher ay doomu sénégalais ngeen defe ne bëgguma loolu mais je l'aime loolu mënuma ci dara mais benn réalité bi am nag mooy vraiment il faut que les sénégalais ñu ànd ak suñu sago bëgg naa diw loolu c'est pas un crime bëgguma diw tamit c'est pas un crime man ni ma ko bëggee la ko keneen bañee c'est ça la réalité man bëgg naa ko keneen bañ na ko mais c'est réalité man bëgg naa Sonko keneen bañ na ko loolu réalité àdduna la àdduna ñëpp mënuñoo àndandoo bëgg kenn mais ce qui est sûr et certain je vais vous le dire aujourd'hui euh, bëgg nañoo dégg suñu opposants yi on veut vous entendre bëgg nañoo dégg ñëpp boo leen bëggee ñu bëgg leen boo leen bëggee ñu sopp leen ngeen dugg suñu biir xol yi ñëw leen génn ngeen di waxal sénégalais yi ñëw leen génn ngeen di xeexal senegale yi ñëw ngeen di génn ngeen di wax sénégalais yi di dégg Sonko day génn di wax ñuy dégg il soor il parle on écoute Sonko duma ko partager ak kenn je vais vous xam naa bu ma ratee occasion boobu laalu ma ko doomu sénégalais yu bari dañuy feebar ndax ñëpp a ngi xaar ñëpp a ngi biir seen biir yi ñëpp seen biir yaa ngi bëgg a toj Ousmane Tounkara li muy wax ci Assane Diouf ak Sonko Assane Diouf li mu wax Assane Diouf rek la intéressé xam nga relation bi Ousmane Tounkara ak Assane Diouf ça n'a rien à voir Sonko ni avec Abdoulaye Wade ni avec Karim Wade donc euh, si Assane Diouf n'aime pas Sonko ça la le problème personnel de Assane Diouf Ousmane loolu mooy dëgg soo ma tegalee fukki Assane Diouf nga tegal ma benn Sonko dinaa tànn Sonko de sa manière ma dem ci Assane ñu wax li nga xam ne moom la ñu sekk pour wax Sonko laay tànn pour mu doonal ma président bu bu ma doon tànn c'est pas Assane Diouf Diouf fi ma seq ak moom ça n'a rien à voir avec la président du Sénégal sekkul politique sax li ma seq ak moom ça n'a rien à voir avec politique il faut doomu aadama yi leeral loolu seen bopp. il faut ngeen mën a jël Assane Diouf ngeen seppi ko total de la politique sénégalaise ngeen teg ko na le Assane Diouf c'est un citoyen sénégalais qui parle ce qu'il veut parfois un peu trop comme parfois nous parlons un peu trop yenn saa da ngay wax ba wax bi ëpp la doole loolu mooy wax bi sama wax sama waa ji yenn saa mbir mee koy ëpp doole da ngeen koy comprendre c'est ça la yenn saa yi da ngay wax mbir ëpp la doole mais ñun ànduñu ak Assane Diouf ci saaga Sonko de déedéet déedéet notre frère il est à côté Sonko il vient en première position eh sama jabar moo ma bëgg te te te te te bëgg ma sama jabar musuma ne tànnal sama diggante ak Sonko musu koo wax alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin sama jabar musumaane tànnal sama diggante ak Sonko alhamdulilahi rabbil alamin man daal Sonko dama koo bëgg ci sama biir xol dafa dee ci sama biir xol bi te billahi wallahi tallahi avant Sonko nee naa leen man ki ma yar Ousmane Seydi moo lañ ma tuddee moo ma yar keroog defe naa démb la woon sama yaay dugg na seedeel na leen ko Ousmane Seydi man moo ma yar moi je n'ai jamais été politique man musuma politique ci àdduna Sonko moom ma gëmloo ne yaa yaa un futur au Sénégal Sonko moom ma ko gëmloo man demoon naa ba gëm ne Sénégal léegi ñëpp dinañu dee te dinañu torox te Sénégal dootul avancer les politiciens vont tout nous vendre te Sénégal fii lay yem man falaa yaakaaroon ne lañ jëm pour senegal mais yàlla def euh, Sonko ñëw euh, faj loo xam ne won ma loo xam ne ci sama biir xol. Euh, vraiment j'ai eu du courage encore j'ai eu du courage indil ma beneen beneen courage bu bees ci politique ça ne pas dire que ngeen déglu ma waa Idi waa xalifa waa ñeneen ngeen jéggal ma de néew ma Idi baaxul neew ma xalifa baaxul neew ma Malick Gakou baaxul ma ci affaire kenn lijjantiw ma leen je n'ai pas regardé parce qu'ils ne sont pas là pour me parler pour que je puisse savoir man savoir laa bëgg a def dama bëgg xam dama bëgg ngeen ñëw je veux que vous venez et que man loolu laa bëgg a ngeen def dama bëgg ngeen ñëw pour ngeen wax ma déglu boo leen ñëwee wax ma ma déglu bu boobaa ma mën a comprendre mais boo leen ñëwul wax ma ma déglu mënu maa comprendre donc quand je ne comprends pas je ne xam nga mënuloo comparer lu nekkul. Moi, je vois une seule chose, je vois un seul jeune qui s'arrête et qui dit non à tout moment. Moi, j'entends qu'une seule personne qui est là, sur la table, ne non, Nangouma. Non, je refuse. Je, on ne va pas faire ceci. On ne va pas faire cela. Tu ne vas pas manipuler les Sénégalais. Tu doomu Adama laa dégg mu ñëw di wax loolu. su ma déggee ñaar, incha allahu rabbi dinaa ci wax. Benn laa dégg. comme benn laa dégg benn boobu kese laa mën a tontu su ñeneen ñi bëggee ma tontu leen nag ñu ñëw Ousmane Tounkara ti pourquoi tu ne fais pas ceci tu ne fais pas cela viens quand je te vois on est face à face je te parle ou bien je t'entends et que tu parles et que tu dinaa mën a wax ak yow mais un doomaraam de Macky Sall du wax ak sénégalais bu dul occasion ba occasion lay jël wax ak sénégalais occasion spéciale ba occasion spéciale lay wax ak sénégalais. bu waxee ak sénégalais occasion spéciale ba occasion spéciale lay wax ak ñun bu waxee ak ñun mu manqué ñu respect mu wax ñu euh, li nga xam ne bëgguñu koo dégg mu gën a mettil suñu xol yi parce que le 31 décembre quand j'ai écouté quand j'ai écouté la petite partie du discours de Macky Sall j'ai écouté lii boo leen gisee ma yor ko ne ci whatsapp bi lañ ma ko yónnee man jëluma cinq minutes di déglu doomu xaram jooju duulkat ku jël sa temps di ko déglu yaag moom yëpp yem ngeen nee nañu la mbaam bu la weqee nga weq ko yéen ñaar ñëpp ay mbaam ngeen Macky Sall mbaam la ku mu wekk nga wekkaat ko nekk ngeen ñaari mbaam donc Macky Sall buy wax